alaikum alaikum. leen nuyu yéen ñëpp ci nekk sa ak ci sa sant di nuyu sama militants yi di nuyu aussi sympathisants yi euh, man la qui Sène bokk ci APR nekk ci Benno Bokk Yaakaar di nuyu ñëpp ñu toog di ñu seetaan ak ñi may déglu di nuyu militant yi di nuyu aussi sympathisant yi di responsable politique Euh, may jiital ci nuyoo bi comme ni ma amee habitude di ko wax rek sama coordonnateur sama kilifa muy le ministre des forces armées di nuyu aussi le professeur nuyu sama mbokk jigéen ñëpp di nuyu waa benn bokk yaakaar ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen baal àq di leen baalu ak ci at mu bees mi ñuy dëgmal di ñaan yàlla su déween naree ñaaw yàlla na mel ni ren Euh, di nuyu wa ci info aussi jaarale ko ci say latir ak wa Sénégal info di len sante di len gërëm ci tan bi ñu ma tànn te ne xam na ne tan nit yombul ci mbolo ma ngi lay sant di la gërëm di la remercier sur loolu aussi di saluer aussi liguey bu rafet bi ngay def fi ci biir Thiès na ci ñun ñi way politique yi ndax yaa ngi ñuy fësal di ñu wone di wone li ñuy liggéey aussi ci parti bi. man maa yaay may mun a seet man duma ko gërëm dama koy ñaanal ndax doom ju ma déggal la lekkul dara bàyyi ma teg ma place loolu jàllee tamit may gërëm le président de la république Macky Sall ndax ci élection yi passé rek législative yi da ko boole ci list national loolu ku mu doyul rek dara du la doy. gor danaan ñàmm ma waaye doyalu ma kenn du ko wax man su ma may mun amul non. parce que nag gisuma ku ko bañ ci parti bi di gërëm tamit waa Grand thies ndax it amul góor amul jigéen amul mag amul ndaw dañu jàppale may mun di jël sax seen alal di ko ci def ndax kaar mun nañ ko indi sax ñuy yàkkamti jël ay taxi fu mu leen woo muy guddi muy bëccëg ñu fekk leen di gërëm samay mbokk di ñaan tamit bu dee ñaan waajur day daw li ma koy ñaanal maa ngi ñaan yaa rabbi li gën ci moom yàlla nag ko defal te muy laay lépp lu mu séentu ci parti bi, sentu ko ci Macky Sall yàlla na ko yàlla defal li gën ci moom ak ñamu àndal di politique ba ci yéen ñii sax ndax yéen ñu baax ngeen ah parce que yokkal lu leen may mën a sosalu leen ko te it mënu leen koo yokkal mënu leen koo sosal parce que li ngeen gis rek ngeen di wax di ñaanal sama njaboot nag ak njabootu ñépp yal na yàlla barkeel ñépp ñu fekkee lépp te ko jëriñu ak mbooleem jullit asalaamualeykum wa rahmatullah